aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah euh, mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur sa sant di jiital bi nag ku ñuy wax Babacar Touré Babacar Touré maa ngi lay nuyu di la sant yàlla def na nag xamante ñu mën ak yow mais ci réseaux sociaux yi laa gis sa yenn intervention yi ngay def ak yenn publication yi ci benn waa ju ñuy wax Pape Faye Pape Ndéné Faye ñu gën ko xam ci Pape Ndéné fay nag la tudd bon ma gissat encore ci youtube bi encore pap fay guen am fu mu yor ben téré alcorane di wat di indi ay baatu cédé né yow non nga ci mom motax ngay wax lo xamné amul wala lo xamné ne wala ngay yak deram man nak bo gissé ma jël sa numéro yow Babacar euh, pour defal la ben vidéo bu ndaw bu gatt dama ci teunk rek pour wax né bu féké yow da nga djublu pour yak ak fay man loolu duma ko deugal parce que lutax duma ko deugal parce que man mi di wax ak yow dafa am fuma jaar ak pap fay am duma sekk ak mom ma gis tam ñoo xam ne séq ak ñom ci lo xamanteni ne nii ci wàllu euh, jubadi la muy escroquerie comme ni koy waxe li mu séq ak ñeneen nak am na ci ño xam ne man xam naa mais ñom lañu génn waxal seen bopp mais man dina waxal sama bopp man Macodou Sall laa tudd dekk fi ci Dakar nek commerçant fi ci Sandaga vous comprenez te nit ki def dañ na lepp loy wax na nga wax bir ba mel sóoraale ki le tim muy mawlaana borom bar mi nga xamna lepp na lepp te lu way wax fi ëllëg di ko rawatina encore sa moromu gor wala sa moromu dulit wala doomu adam nga yak deram wala nga tuumal ko wala wax ci mom lo xamanteni amul je pense que àq bobu wala bakar bobu di di di di dugal ak mom ci bir bàmmeel amul lu ko gëna wooradi kon ma limay wax dama ko xam et je pèse bien mes mots pour wax na la Babacar Touré yow lepp la wax ci pap fay da nga indi ay preuves ay faits yo xamné son constant nga ñëw tek ko ay nit gis ko nga interviewé ay doomu adama ñu wax fu pap fay jaar ak ñom ci ñaawteef ci tas yaakaar ci wor man nak ce qui me concerne sama digënté ak pap fay damay wax né pap fay yow do nit ku bax man may wax ak yow je m'appelle mako dessal yow do nit ku bax kamil boobu nga genné téye ko di am loy wax wala di jëm weddi ay touma lolou yow Babacar Touré nga koy wax mais man dama ko wax man so amee loy wax génnal nga tontu ma man mako Sall Pape Faye yaa ngi ci sama 4 millions 750 000. 4 millions 750 000. depuis 2004 depuis 2004 ma fekk la benn kër goo luye fële Sacré Cœur 3 boobu Sacré Cœur 3 mel goo ni mel nii 2004 laay wax je pèse bien mes mots te kayit baa ngi ni dinaa ko talal léegi askan yëpp gis ko monde entier ñëpp gis ko pour wax la na ma yàlla baal mais gis nga yow suñu bokkoon ndey ak baay dinaa la posé na nga dee parce que man ñaanuma yàlla bokk ci askan mu mel ni yow ci askan mi nga bokk ñaanuma yàlla yow wen bi nga namp yow parfait man ma namp ci man parfait Faye ku bon ci société bi nga yow su ma la mënoon éliminer dama lay éliminer parce que li ngay def doomu adama jaadul tass nga ay sëyu jambour dugal nga ay nit kasso tass nga yaakaar doomu adama yang ngi deg indil nga nak ay ay nit ay problème yo xamanteni ba léegi xamul fu ngui koy waxee te lu nane naan ko def rek fek def nga ko am leneen loy loy préparer wat kon pap fay xolatal sa bop duma lu menacer nak mais nena la yow tu finiras mal tu finiras très mal. parce que Yalla wax mukk du deñ ci adu ci ci ci ci ci ci ci kaw suuf yàlla lu mu wax du deñ te ni nga continuer di def ni Pape fay bés dina ñew wallahi di nga rëcc loo ko don defé yomal xiyam nak Yalla mo xam lu muy àtte yàlla mën na jégal jaamam à tout moment mais dama ne fi ci aduna man amna sañ-sañ wax en tant que doomu adam ku ak ku gàddu ak doomu adam nga Pape fay te li bu lako ko nit ñi jégalul billaahi boo duggee ba bàmmeel di nga koy rëccu man nak li ma lay wax yow la concerner Pape fay sama dërëm billahi wallahi taala ma dunduma de duma lako bal duma lako bal fi duma lako bal fële lolou na leer te yow gis nga sa tank fi set Senegal fi fii yaakaaruma fi Pape fay bo fi ñëwee fi di nga nek ci jamm de yaakaaruma ko yow nak Pape fay en 2004 bi ñu xamanté xamante ñu sax parce que yow da nga am say éléments yo xamné ñu ñoom nga doon liggéeyal am ci ku ñuy wax. sa élément la won ak gaan boobu dëkkoon côté jàmmalaay te sant dañ koy wax lay lay xawma ma affaire yi tànk temps sax gis naa ko am fuma day mom tank bi yàqu dama yalla bal manuko yene ko yéene mais lii bu dal won mu rus parce ni ngeen jappé àdduna non do aduna di wër di ju di di di di di di dribbler ay doomu adama di nax ay nit uniquement pour lan yow lo xamanteni ni munu mënu sa aduna munu changer sa lay pap fay ndax khalis pap ni nga nek na ko bayyi ça ne continuera pas te bis dina ñew wallahi di nga ni li waxon naa la nañ dem Pape 2004 biñ may bolé ak yow sa élément bo Pape Ba Fala ñëw place Ponti magasin di jënd matériel relation comme connaissance ak mom benn jour mu andi la place présenté ma la ngi ma tout le temps ngay ont nit bo da nga yiw da nga yiw Ils a Pape Faye bi ñu man ak yow ba waxtaan ma la man dama sam ben jigen bu bëgg dem États-Unis nga ne mu na ko yóbbu ci 5 millions Pape Faye ma fekk ba sa kër sacré kër yëkëti 5 millions té ko solo xam amon ci yow confiance parce que fa la fekk sa jabar fekk sa dom tout ça kër gi vraiment c'était bien aménagé je me dis que fi sa kër do mu mëna rër réer parce que xamoon naa kër gi ndeke do kër gi da nga ñëw luyé ko di fenn ya ko mom ndeke di kër gi moom moo sa jabar jooju ñu doon wax Ndeye mari nak limay wax mom dina ko dégg ak fu mënti nek dina xam ban jëban jëmm mooy wax ak moom nday mari boobu yaa ngi comprendre nday mari ci biir waxtaan moom it mu feeñu ma am sam beneen sœur bu nekk Sandaga buy jaay ay tissus mu ne ma man daanaa ñëw Sandaga ci bërëb sàngam man kooku sama sœur la mu ne ma àkkoon ah, kay man sa sœur la nangam ak nangam mu ne ma diw boo ko gisee ne ko gis naa nday mari nangam ak nangam pour man ba tey toujours rek bon xel mu dal day am quoi ndekete yàlla sa jabar jooyu yëpp ay ay complice men ay complice ngeen parfait. Faye bi ma joxee cinq la joxee cinq millions ñu dawal ba ben jour nga ne ma ut nga rendez-vous pour ndaw si ma wo fam bi ne ko dajaleen béréb sangam nga and ak Pape Fay. ba ngeen démé nga yobbu ndaw si café d'Europe ngeen tok pay ko café ne ko xaar tuuti ambassade ubi. nangam nangam ñu dem déposé Bobu ambassade États-Unis toxoogul ñi ngi fi fii ministère de l'intérieur Bor ministère des finances fofu ambassade ambassade États-Unis nekkoon ngeen dem bi ndaw si ah war ma rendre compte Mané ko mais alors nan la mujjé mënu ma yow waa ji da nga ko xam bu baax mën na ko noo waa ji kay xam naa ko mënu ma ah man daal ay mbiram daal te tey na sama xel lu tax ay mbiram tey sama xel mooy wax ma fi nga jaar ak moom yóbbu ko Café de di ko wax lu ñàkk fayda ak lu ñàkkul fayda boobu tam yaa ngi koy jëm a peese ndax moom am na alal wala amul alal pour nga jaar ci kawam di ko proposer ay affaire ay doxaanante yooyu yëpp nettali na ma ko ci la sama sama xel commencé tey bi nga prononcé rendez-vous bi. ne ma dañ koy reporter nangam nangam mané amul problème bi date ba jotee waxoo dara la né parfait mun man ko jox ma sama xaliss tek le pression tek le pression ba yalla def ci digënté ma voyager may jokkoo ak yow benn jour nga woma dama ne ma yor naa 400000 yu ma lay jox ma ne la ma nekkuma fa ma booleeg sam benn frère bi ñëw Pape mu njugo sal mu ngi fii turam na ko wane après ci photo bi yépp nga gis ko décharge baa ngi ni dafa xoté ko vous comprenez dina ko photo nu duggal ko ci net bi mu gëna lèr mais su ngeen gisee nii li ngeen xam ne date bi dafa yàgg gis ngeen mi ngi nii mi ngi nii tur yi tur yi may lim yëpp après di ngeen leen gis ci biir décharge bi dinaa ko yónnee Babacar Touré en personne moom mu publier ko bi nga yore 400000 nga jox ko Pape Ba ma ne la demal sama benn frère ma jox la numéro après nga jox ko Pape Ba ndekete Pape Ba moo yóbbu xaalis yow yóbbu woo ko bi Pape Ba demee moom la sama frère defal décharge bii ci 4 millions yi ci 5 millions yi mu jox ko ci 400000 francs CFA. mu des 4 millions 600 bi ma ñibbisee voyage ma jël 400000 ma lay woo après jotuma la ma lay woo jotuma la ndekete boobu changé nga numéro ndekete boobu yaa def yàlla mi dara tawul sam beneen booy ñëw ne ma grand dama fi gis temps yi passé benn gars mu dugg sa place fii quoi un certain tel tel tel expliqué mooy mu wax ma fi nga jaar ak yow ma xam ne kon yow Pape say mbir jar naa tey ndekete moom boobu yaa ngi lijjanti pour dem Europe moment bi ma lay woo jotuma la ndekete boobu yaa ngi dem Europe. Pape Faye ci 2005 boobu noonu laa déggante ak yow yaa ma woo présente ses excuses nangam nangam kërëb kërëb nga ne ma maa ngi fii ci Europe am yu may lijjanti ma ne la Pape man sama xaalis laa soxla nga ne ma am na oto yu may yónnee Sénégal bu oto yi ñëwee sax xam nga nga tànn ci benn bu fekkee yaam ma war a dolli nga dolli bu dee maa la war a dolli ñu xool nu ñuy def nga ne ma jox ma sa fax ma jox la sama numéro fax nga yónni ma ay papier oto par fax. ma tànn ci ben laguna bu jël carte carte baangi ni moy laguna bi tam dina ko foto dugal ko après caabi ji nii lay mel vous comprenez day jël puce caabi laguna baangi ni ak pochetam bi bii Pape Faye yónnee ma euh, papier auto yi par fax ma choisir ci laguna bi mënuma léegi laguna bi nga jël dañ ko wara tek ci ki bi régler papier yi ba nek en bonne uniforme ñu tek ko ci gal gi mu ñew yow ma dugal la papier par DHL bu ñëwee nga dédouané ko mané ko batay nanguna nangu na dem ci Dramé bureau Dramé.

caabi ji may wax ak yéen ni ba léegi mi ngi nii ça fait 15 ans maa ngi 2005 ba léegi ça fait 15 ans 15 ans maa ngi ba 2020 bi ñu nekk nii actuellement ma dégg ay coowu temps ci réseaux sociaux bi sama benn xarit sax bu ñuy wax Bouba Boubacar Konaré di nga ko xam bu baax xamante ngeen les idées Boubacar Konaré moo fi ñëw nettal ma say jaloore daal di ma envoyé benn lien bu Babacar bii mu ubbi ko cliqué ko mu yóbbu ma YouTube ma lire ko ci laa jël numéro Babacar envoyé ko dem message ne ko dinaa la yónnee ay éléments yu wóor ndax nit ki lépp lay wax day ay ay ay preuve pas nit ku bon nga nit Pablo Pablo nekkoon Paris te ñëw Sénégal yàgg na Pablo léegi war na fi de plus de 10 ans maintenant Pablo moom xam la bu baax ba ko waxee say wax la ne nangam nangam. ba sa mariage ba ci Champs-Élysées ba ngay takk doomu jàq si sama damel bi Youssou Ndour way ndaw soosu bi mu ñëwee Sénégal dem naa ba këram ma toog mu toog ba ma ko commencé sa wax mu ne ma mon frère excuse-moi su ma xamoon waxu Pape Faye nga fi wax vraiment du ma la dalal sama biir kër ma xam ne moom boobu yéen ci ay jeexi jaax ndax boobu fen nga ndaw si dig ko ay mbir yoo xam ne dara amu ci lekk xaalisam dugal ko ci ay problème ndaw si ma lay wax yaayam mooy jàq si sama damel bi Youssou Ndour di way li may wax xam naa ko bu baax te ci internet laay waxee kon pour dëggal yow Babacar Touré li ngay wax lépp loo wax ci Pape Faye rek am nga loo fàtte wala am na loo jotagul mais Pape fay na ma yàlla jégal du nit ku baax nit ku bon ci société bi nga yow ku jare éliminé nga parce que ni nga nar a jàppe sa àdduna di tas ay yaakaaru doomo aadama di féewale ay nit di tas ay famille Pape Faye ku bon nga man ma Codou Sall maa la ko wax image bi nag maa ko yónnee Babacar Touré gratuitement pour wax na yow li ngay liggéey dañ la ci sant di la gërëm Babacar ndax defoo da dara lu dul yee askan wi di yee nit ñi di wan ñi nga xam ne ñu mel ni ñi def ko def ko tu ñaawteef yi mel ni ay Pape Faye nga yoole leen ñëpp xam leen gis nga fii ku wax lu baax wala nga def lu baax ñu waxal la ko mais ku def safaan ba ñu waxal la ko yaa ko def nit ku bon nga baaxoo ci société bi man képp ku ma xam ku nekk Europe envoyé naa la sa photo envoyé naa la say image pour wan na pour wax leen ñu moytu la te Pape Faye yow yàggul ku dugg internet gis nañ yow madame Viviane Wade Jabaré Ablaye Wade bi mu au pouvoir am nga lu séq ak moom ci fondation bi nga lekk xalissam bu bari mi ngi ci internet bi mi ngi ci internet bi jabaru Ablaye Wade bi Viviane Wade am nga fo jaar ak mom Pape yow ku xamul ngay wax mais ku loo xam do génne ay kamil taxaw ci kanam di waat kon askan wi maa ngi di nuyu di len ziar di jégalu encore ñew mëna pour yàq der doomu aadama luma xam rek la wax luma xamul duma ko wax ñew mo tamit pour tout mal ko ne ni maanaam dama ñu dama ci jublu pour yàqal ko non non non du foofu parce que dañu toll ci benn jamono boo xamante ni nii nit suy wax safaan ci doomu aadama dañ yaakaar dafa daf ko añaane wala dafa jóg pour yàqal ko non non non man dama am lu ma ak moom ma am droit taxaw pour leeral ko loolu lay leeral nii loolu kese moom mu tax a jóg mais juguma pour yàq ko juguma pour yàqal ko ndax mooy li ma wax ci sama njëlbeenu vidéo rek man ñaanuma yàlla taxaw di yàq der doomu aadama wala di ko jëw di wax ci moom loo xam ne ëllëg dinaa dugg subir bàmmeel di ko layoo jamais lima ma séq Pape Fer laay wax te mi ngeeg sama xaalis te moo ci tëdd te su ma coupé léegi dinaa dugal photo yi ngeen gis ko maa ngi jégalu wasalaam